nangam fekk yu mel noonu iblis ci lay jaar pour nax la nan la ciy jaaree nax la mooy que nga bëgg ba ne moom ngay nooyee da ko dégg ci nit ñi man dama bëgg sëriñ Oumar Sall ba moom lay nooyee dama bëgg sëriñ nangam ba moom lay nooyee loolu iblis xam ko ci yow fas yéene pour jaar ci yow yàqu lu bari. parce que que mu gis ni da koo bëgg ba mu jaral la daanu di mbëkk miir moom lay yore jëmmam ne fas sa kanam ne la man la diw soo demee del def nangam. wax ko taalibe yi def nangam gis nga en général li mu lay wax day nuroog diine te du bokk li diine jàngale mën na la wax sax jàngal alquran dugalal la boobu tuddal yàlla dugalal la boobu jox la beneen tur soo deful ndànk da jàpp ni ci tur yu baax yi la rek yaa allah yaa allah yaa samwil yaa samwil yuusul yaa xartata yuus nga yor lu mel noonu mu la ko jox loolu fan la nekkee tudd yàlla xafastata yuus yaa jabrail jibril kenn du ko tudd duñ ko jaamoo yàlla yaa mikail mikail kenn waru ko woom bi ndef la yaa israfil israfil kenn waru ko woo yaa shamharus jinne la jinne ju bon nga fekk nitu diina ay nit topp ko muy dugg xalwa di wér di yaa shamharus di li may wax nii taalibe yi xamul ñoo koy kaas ñooy kaas mais sëriñ si xam nañu li may wax kenn du ko ci weddi billaahi ladi laa ilaha gayru taalibe yi xamul dara nag ku mu neex saagaal ci internet bi saagaal Oumar Sall waxal lu la neex mais mbër yi bëree xam nañ ñii def lii xam nañ sëriñ su bëri dañuy yore ay di ko wird fekk du lu yàlla digle parce que ay tur la ñuy woo huuhuu mooy lan yaayaa mooy lan nga xam ne dangay gis ni lii ay nit dañu koy wirde bu ko defee mbooloo di la ca toppee léegi nag nga jàpp ni man day sëriñ bi laa dajeel moo ma ko jox wala moom laa gént jàkkaarloog moom mu jox la sharia kenn dootu ko jox kenn ginnaaw ni ko Muhammad indee sallallahu mën na laa yóbbu ba nga sos sa salaatu bopp nga créé beneen julli ci yonent bi bàyyi bi Muhammad indi sallallahu alayhi wa sallam xool leen danger boobu yonent bi la yàlla ni inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima aaya alquran la ci suratul ahzab bi mu wàccee saxaaba yi ñoo ñu gën a dégg arab ñoo ñu gën a xam te saxaaba yi dañoo ñëw ci yonent bi ne ko xam nañu ni ñuy jullee mais ni ñuy jullee ci yow xamuñu ko xam nañu julli allahu akbar xam lépp mais yàlla dafa ne nañu julli ci yow ndax moom yàlla mi ngi julli ci yow yàlla nee na nañ julli ci yow ndax malaaka yi ñu ngi julli ci yow mais nan la ñuy jullee ci yow kan la yàlla yoon di yonente bi ku ñu ko war a laaj ju moom yonente bi ne leen na ngeen wax allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad muy salaat ibrahimiya ba mu jeex waaw boobu kan moo ko jàngale yonente bi ndax boobu du piir iblis day ñëw indi beneen royal nga bàyyi piir di dem ci royal léegi nag day bàyyi ba bis jot mu géntuloo kenn wala mu gis loo kenn mu toog rek créé ab salaatoom allahumma salli ala muhammad adada maa xalaqa nujum wa sama adada nangam nangam salaat kaamila salaat nangam jël ko jox ko say taalibe gi nga say taalibe fu ñu waxatee dootuñ julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam julli bi nga def ci yow ñoom moom la ñuy def imaginez nag foo billet ak billet normal ban ban ngay yóbbu am xaalis ban moo valable faux billet mun na nekk mun na nekk mun nga am këyit defal ko foo billet muy euro wala muy dollar wala muy CFA nga jàpp ne yor nga xaalis mën nga cee nax borom bitig bu xamul nax ci borom magasin bu xamul mais bis a ngi ñëw nga jaar ci koo xam ni dikk moo lay jël si ñu tëj la kaso. lan moo tax parce que faux billet nga yore yonent bi nan lay jàngalee ñu julli ci moom nga xamante ni julli gi ñu war a julli ci moom yonent bi nee na yàlla subhanahu wa taala ne ku julli ci man benn yoon ma julli ci yow fukki ku julli ci man fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon te mooy jéggal ku julli ci yonent bi téeméeri yoon yàlla def ko ci yow junni yoon nee na ku julli ci man junni yoon yàlla dana dogal sama mbagg sa mbagg dina mbëkkante buntu àjjana kan moo jàngale boobu yonent bi iblis nax ñu ñu indil ñu beneen salaatu foo tourné moom ngay dégg léeg-léeg ngay dégg Sénégal salaatu bu waay mën loolu mooy lan fan lañ ko jëlee salaatu bu waay mën fan lañ ko jàngee ak kan moo joxe salaatu yooyu kan moo ko jàngale ndax salaatu yi ñu joxe Muhammad ko jàngale ñu baal ñu xam nga diine dafa neexul soo ciy wax rek mën nga laal xol yu bari parce que ñi xamul dañuy foog ni da ngay attaqué mais tey ñaata ngay toog ci mbooloo nga dégg ñu ne peru salaatu bu waay mën wala salaatu bu waay am digal ban salaatu la nit di am ndigal amul benn salaatu bu ñuy joxe ndigal mu wér salaatu bi wér yonent bi joxe na ca ndigal te mooy allahuma salli ala muhammad ñépp a ko bokk boo xëyee mën nga ko kenn amul droit jox la ci benn ndigal ndax du alalu kenn du alalu kenn du moomalu kenn waaye salaatu bu waaye am sañ-sañ salaatu bu am ndigal nga foog ni yaa ngi koy def di julli ci yonante bi naam bu la neexee tuddee ko julli ci yonante bi waaye ndax bokk na ci li yàllay validé kooku question la war nañ ko bàyyi xel loolu moom mooy danger bi mooy iblis dina yor keneen ne la man yonent bi nga gént parce que xamuloo ko jullit ñu bëri xamuñu melokaanu yonent bi parce que ñorut leen boo leen laajoon melokaanu MSSR xam nañ ko boo leen laajoon bandi yi ci àdduna xam nañ ñu ngi mel mais yonent bi nan la mel xamuñu ko yow nga bëgg yonent bi loolu te xamuloo iblis day bàyyi nga nelaw mu ñëw jox la jëmmu keneen yow jëmmu keneen ferenku laayu kaalaw ne la man la rasulullah nga ni est que gént naa yonent bi bu ko defee nag mu ne la defal nangam defal nangam yonent kenn du ko gént ci islaam mu lay jox leneen lu bokkul ak la mu joxe moo tax saaboo boo gént naa yonent bi rek dañ la naan lan la la wax loo gis li nga wax bu méngoog li mu wax ñu naa ah, kon de kii gis na yonent bi sallallahu la wasallam waaye dañ leen laaj jëmmam nan la mel xanaa sañoo ñu wax ne yonent bi dafa gàtt sañoo ko xanaa sañoo noo wax ñi dafa njool sañoo ñoo wax ni jëmm keneen la yore sama benn waay ndeysaan dafa am génn gént mi ngi fii caarooy commerçant bu mag la sama xarit la mu gént dama oustaz man de damaa gént ku tedd ki ma ne ko ah alhamdulilah heure bu ma fa jaaree nga leeram ma jaar fa benn bis jënd fa ay bagage ba pare mu ne ma ku tedd ki laa gént ma ne ko ku tedd ki mooy kan mu ne ma yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma ne ko waa léegi nan la mel mu ne ma dafa sol yére bu ñuul yore benn bant ne ma ne ko am na sikkim wala amul mu ne ma noonoo sikkim bi tuuti la ma ne ko yow géntoo Muhammad keneen nga gént mu ne ma non moom laa gént ma ne ko diw mu naa ma ne ko ragalal yàlla commerce bii nga maîtriser diine du sa xam-xam da nga maa laaj ma waxal la lii dëgg géntoo Muhammad keneen nga gént yonent bi doo ko gént mu lay jox beneen ndigal ndax ndigal li mat na ba pare kon yu mel noonu ñaata nit lay dal léegi nag loolu nga gént